di leen wóor ne tafaay bamba dooma xam baay ne moo namp ci meenam ba fer ba mat waay koy weddi seet bis ba bamba wuy jéem ñu tëj kër ga ca njaareem ne dund day jéem aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin mbokki julli di mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, yéen a ngi ànd ak seen yéen a ngi ànd ak ñun si seen site internet Ahibahil Khadim TV eh, ci màggal Serigne Touba gi nga xam ne ñu ngi ko defee ci Touba Darou Khoudoss Euh, ñu nekk fii si jumaay Serigne Touba ji euh, ci barab di jàkkaaroog nii barabu Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, moom mi nga xam ne moo andoon ku tedd ki di Serigne Touba bañ koy fàttaliku ci bisu tey jii nii mu doon noonu loo xam ne moom moo ko joxoon Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Moustapha doon ko wéyal ba tey ni mu agsee ci toogaay Serigne Ahmadul Mokhtar waaye sëtam bu baax bi jëwriñu ñu baax ji di Serigne Mouhamadul Moustapha moom Serigne Mbacke Mouhamed Euh, moom tamit di ko taxaw taxawaay bu am solo ànd ko ak mboolem ñi nga xam ne ñooy daari ahbal xadim ak euh, mboolem jullit yëpp euh, ñu ngi fii ci barabu sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha fii ziar bi comme niñ ko gisee nii rek ci image yi nit ñaa ngi ñëw di ziar si Euh, mbooloo mi macha allah fépp foo génn ci dëkk bi mi ngi fees dell ak i doomu aadama ngir ñëw ziyaare si ci li nga xam ne mooy barab bi di barabu a Mouhamadul Moustapha ak barabu Serigne Touba Xaadimal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam euh, kon incha allah su ngeen ànd ak ñun rek lépp a xam ne tukki na fi rek dangeen ko am en direct ci Ahibahil Khadim TV. jikkeel Ahmaduna Moustapha Madib Taw bu ngeen xam ne jiw rek ngeen bayoon njëkkeel ahmaduna Moustapha Madis Diaw ba ngeen xam ne juuran yu ngeen bayoon daaw te tànnam gala def Moustapha mu dib taaw mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw sëriñ benn ko tànnal ci biiri tànniit jiw tànnut jur buuse mbaate mbenniit sëriñ benn ko tànnal ci biiri tànniit jiw tànnut jur buuse mbaate mbenniit juróom waa ka depook taabaay ne leen kaar ni njoole aminata gën ku deef yaakaar liifaam ya mu ca yow mën a juwaab bu leen peese mu wat leen ci xeeti taqwa li huwa sabqu maal xor bi ne majaha xadiimun nu xadiimin rasulita muqiisun wa maleesul wara su booba wasiirun wa imaadul wara xutuuba ne leen wóor ne tafaay bamba dooma xam ne moo namp ci meenam ba fer ba matwaay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jee ñu toj kër ga ca njaareem ne dun bi day jéem burum kun téléphone Moustapha ca ñaaxeen mu ñëw yóbbu ko Touba ci kun fayekoon tubaab yaag tere tang yaag ci siixi njaareem mu waar leen te defal leen ba ñépp farlu keroog daama ko fal xutbu muy xalifaam jiital ko ci baatin mu donnu lislaam wal waarisu àqan abu taaja huwal xawsu fadalil muridi aja wal waarisu àqan abu taaja huwal xawsu fadalil muridi aja faj aajo yaa ko lamboo te fóotal nu ma faasit ya xol karaamay desu xar baax ya yaa ko mu jébbal la malaanum wéel nga sangoo yérey bamba nga rangoo ma neefu laa ñaaj te baatin bi nga lamboo ma neefu laa laaj ni leen ndaama yu tooloom du yokku ay biiru nanuy daw di koraamal roy dunduroog biir ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jéeb ñu toj kër ga ca njaareem ne dundu day